duma la ci xas duma la ci duma la ci meere ngeen bëgg du roboxé te mu du ko foowee ngir bëggeel dafa bari doole ku cat yaa bari doole ey waay ku nañu mbégte ak contentement bu mag di nuyu euh, Boubacar Diallo chéri Nene Diop nekk ca Gunaas kooku suñu xarit la taalibe Thierno Abdourahmane Bari nekk ca Bogol waaye nag moom Boubacar Diallo di chéri Nene Diop ca Gunaas nuyu nañu ko joyeux anniversaire à Fatim Diouf depuis Cambérène nekk ci restaurant bu euh, Madame Fall ci TFM ñu koy nuyu tamit le personnel ñëpp ñu koy souhaité fii nag ci Télé Futur Média ñu koy souhaité joyeux anniversaire joyeux anniversaire à Ahmed Fall depuis Yëmbal de la part de Kiné Badji joyeux anniversaire à Fatim Diouf de la part de Sané nekk fii ci Télé Futur Média moo koy souhaité ki nga ne mooy Fatim nekk ci restaurant ba ca kaw Ami Camara chéri Pape Aw depuis Thiès de la part de euh, Maman Diallo di euh, maquilleuse fii ci Télé Futur Média moom mooy souhaité Ami Camara di muy nuyu Ami Camara chéri Pape Aw depuis Thiès Younous Thiam séeri jaari Thiam ca Kaolack Medina Baye kooku magu Badara Thiam la ñu koy nuyu de passage di am mbégte contentement moom tamit nee na kontaan na waaye ñu tudd Cheikh Alassane Ba Mouhadamou Baye yaa Penda Ba ñu ngi koy nuyu Maymouna Ba ñoom Fatou Kane ñoom Aminata Ba ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu tamit maman euh, Rayana Diouf nekk ca Pikine ak Yacine Ndiaye ca Mauritanie ñoom Raba ñoom Daba Ndiaye ñu ñu tamit ñoom Kina Ndiaye ñoom Penda Ndiaye bébé Ngenaar Ndiaye ak bébé aliment ñoom bébé Yacine Diouf ca Thiès ak bébé Ousmane Top bébé Maguette Ndiaye ak Xarjata Xajjata euh, Mbaye de la part de Ablaye Ndiaye merci ñoom ñëpp ñu ngi am mbégte contentement di ànd ak ñun Alassane Lay petit fils de Serigne Bass Bara et Mohamed euh, Victor ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu moom Victor nag ki nga xam ne moom mooy Gofal moo koy nuyu Serigne Cheikhouna Mbacké petit fils du xalif général des Mourides yàlla na ko yàlla defal jàmm te yàggal ko fi moom ci boppam ak Serigne Cheikhouna ñu ngi koy nuyu nuyu tamit madame Thiam Mame Diarra salon expérience coiffure de la part de Lari ak madame Touré Ndoumbé Niang salon Fat Thiaw Laay di nuyu tamit euh, euh, ñoom euh, Saw ñoom Diallo de la part de Dërëm Saw Saw ñu koy nuyu ak Diallo de la part de Dërëm waaye Miss Bambay Oulimata Dioum nuyu nañ ko bu baax di am mbégte contentement ci Alaaji Basiru Touré ca Daaru Rilwan ak Alaaji Serigne Touré ca Daaru Rilwan Serigne Basiru Ndaw ca Daaru Salaam ak Maxi Touré Modou Touré Moustapha Touré Alaaji Muntaxa Touré ñoom ñëpp dañ ca Daaru Rilwan Serigne Xayre Touré ca Medina Salaam nuyu nañ ko di nuyu tamit Serigne Cheikh Omar nekk ca Sokone nuyu nañ ko bu baax di am mbégte contentement bu mag ci ci képp koo xam ne yaa ngi seetaan émission Kouthia Show di ci ziar tamit bu baax képp koo xam ne yaa ngi am mbégte contentement di nuyu tamit bu baax waa kër waa kër euh, Cheikh Yirim Dumbaan Seck ca Tiawan quartier Médine waa daayira Rufisque ñoom Sadi bu Samb Moustapha Mbaye bésu gàmmu gi ñoom ñoo fay way El Hadj Bilal invité nañ ko foofu ca euh, gàmmu googu di nuyu tamit soxna Ndey Anta Ndiaye ak Cheikh Fall ñoom Pape Modou Seck président ba nag di Baye Cheikh ak présidente Faya Mbaye nuyu nañ leen di am mbégte contentement ci ñoom ñëpp Pierre de Silva ki ñuy seeti moom mooy Amath Dansokho moom ci boppam nag bokk na ci ñi nga xam ne ñoo gën a marqué ci année bi nan la gisee li nga xam ne mooy l'homme de l'année bi nan la koy jàngatee ci këram ñu seeti dans soxo ngi leen di fay dama yeew rek yem ci xibaar bi ma leen di gërëm yen ñëpp di leen sant man du ma def lu euh, euh, euh, gërëm ku ca ndax man mag laa su ko neexoon mu fàttam waaye booy war saay-saay ak tappalekat kucaal damay toog sama doom woo ma naan ma papa kucaa doo ñu bàyyi moom ñu lijjantu ko leen déedéet bu leen ko def dara sama turandoo yi xale yu am doole nii Balla Gaye nañu toll xale yu saraxule du ñàkk doole ñoom Abdourahman Dansokho ak Abdou Dansokho ñoom ñëpp dañu may woo naan ma papa maam bàyyi ñu lijjanti Kouthia man leen bu leen ko door bu leen ko def dara saay saay <laughs> waaw ñun bu ñu deewulee Kouthia moo tax ñu dund ndax moo ñu def ci xolu nit ñi ñu koy gërëm bu baax di gërëm waa direct info ndax lii ñu def tey ay politiciens ñoo ko doon ñoo doon nekk l'homme de ak ay ah, kilifa diine bu ko comédien nekkee kon tey comédien yëpp am nañu ndam ci kaw politiciens yi loolu mooy wane ne que Sénégal jàmm moo fi xaj ñu ngi koy gërëm di wax nag na ko ñaanal ne prix bi yal na ànd ak xaalis bu bari boo xam ne ci am xaalis bu bari waaye nag may xamal ni muy àndal. ñi muy àndal laay wax képp ku ku ca àndal bu keroogee ngay tàggoog moom billaay bu xaalis bi bëri maa ngi ñaan yàlla bu xaalis bi bëree keroog la waa TFM di gëj a gis Kouthia nooskat bu mag ngeen amal affaire xaw ma damay dégg ñuy wax Pierre de Silva ak ñoom Ndiaye ak ñoom présidentiel rek tuutoog xale yu yëpp maa ngi leen miimee ci ci ci kii bi ñoom ma meeg Yacine ñëpp su ma leen xamee yàlla ak émission Kouthia bee ñëpp ma foofu laa leen dégg waaye lu leen di wax bés bu ko Cheikh Amar joxee xaalis keroog la Kouthia gëj a xëy si Youssou Ndour sax du ko gis ñu jox ko ay 2 millions 3 millions waaye bu passé juróomi million boo ko seetee ci hôtel yi gis ko <laughs> saay saay bu magee noonu dana ko noosee tappalee ko ba pare fay téléphone kenn du ko jël bu ko bu yeboo ngeen ngeen ngeen commencé léegi xam naa ko ñi muy àndal nag bu yeboo ngeen commencé lu leer laa leen di wax bu ñu koy jox xaalis bi doo leen ko teg bët man li ma leen wax xam naa ko ñaata yoon laa ko jox xaalis ne ko boo demee jox ko sa groupe bi du kenn ku mu ciy jox tappa ma ne xamu leen ko xanaa woyu bu mag a ngi noonu bu leen ko topp fii la leen di yónnee jikko saay-saay saay-saay bu mag li ko jëlee wal fajiri xaalis la lii ma maa xam ni yëpp Sidi Lamine wax na ma ko ne ma xaalis bu bari la teg diil foofu <laughs> saay saay xam naa ko waaye nag maa ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram man moom wax dëgg yàlla wax naa ko Macky ne naa ko sama ñaari salaire yu weer yëpp na nga ko dajale joxal ma ko Abu bila ndax bu ñu amee lu ñu metti yëpp ci moom nañu koy jaarale ci ay baatam mu wax ko ci li mu ko gise amul fenn foo xam ne duñu ko ci mën a wax da koy def ba mu saf sap waaye mag boo ko feccaloowee rek wan nga ko ne amoo benn problème moo tax ma ne Kouthia ni xoto xoto boole xoto ma ñama ñoo ni Kouthia cey xoto boole xoto ma ñama ñoo ni xoto xoto boole Why? match. Step back.